waqar faaraqarroa ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dugal nañu ko ngir mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew mi wala bitim réew asalaamaaleykum mbokk internet Farokh TV ba tey ñoo ngi woon fii ci Daaru Salaam Nioro di dëkk El Hadji Omar Ndao ñu ñëwoon fi nga xam ne fi la nag yi nekk nag yi nga xam ne moom la sëriñ bi di jox taalibe ak njaboot gi yëpp ci guddig rasulullahi salallahu alayhi wa sallam ginnaaw bu ñu waxtaanee ak ñoom fekk nañ fi daayira boo xamante ni ngi nii ñu ne ñoom ñooy sopp Sidi Basiru Ndaw bëggoon nañ laaj nag lan mooy seen taxawaay fii tey asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu yéen waa mbooloo mi yëpp si turu samay rakk yi ma àndal ñu jógee ko fii ba Maabo def suñuy délégation ñëw jàppale borom daaru salaam si bis bi ak ay rakkam ak i doomam man ak sama délégation ñu ñëw fii nii pour jàppale leen si bis bi ndax bis bi nii du démb du tey démb la woon dañoo fekkoon suñuy parents di ñëw fii nii daaru salaam ba suñu si yàlla si tey sii nag ñun tam ñu màgg ba yàlla def tey ñu tombee bis bii nii ñëw jàppale waa daaru salaam yëpp si bis bi dagg la soxna si ginnaaw bu ñu dégg dégloo kàddu yi ni mu ko waxee mooy li nga xamante ni ñoom loolu lañ ñi def nii tey seen ay waajur ñoo ko doon def si tànk yooyu dañ taxaw ba suñu joon yàlla tey di dégg way jur laa ko mën a waxee ak topp euh, ndigalu sëriñ ñu ngi kontaan ci yéen bu baax di leen ñaanal lépp loo xamante ni jublu ngeen ko ci bés bi yal na yàlla fay leen ak seen sëriñ fay leen jërëjëf bokk internet Farokh TV ba tey ñu ngi ci liggéey bi ñu ñëw fi fekk si ay jeunes yi nga xamante ni ñoom ñu ngi dajaloo fii nii gis nañ leen ñu ngi togg jigéen ñi ñu ngi ci waañ bi ak góor ñi duñ def lu dul bàyyi leen ñu présenté wu sëñ bi bisimilah waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu yéen waa Farokh TV di leen wax dalal jàmm di kontaan ci seen teewaay fa tabaarakallaahu comme ni ngeen ko defee woon daaw rafet na def siwaat ngeen fi tey defaat ko comme ni ngeen ko defee woon ñun ñooy waa association des jeunes dynamiques pour le développement Darou Salam li suñu ittee ak li ñuy ñor lépp mooy loo xam ne mooy développé dëkk bi association bi ñi ko ñi ko xam ne ñoo ko ñoo ko ñoo ko formé ci dëkk bi lañ dëkk ay gune yoo xam ne si dëkk bii lañ juddoo fi lañ màggee ba yàlla dimbale leen def si seen xel yi bu mel nii mu dugg ci seen xel yi ñu waxtaan ci diisoo si ànd si ñëpp rafetlu ko fa laaw ba fi mu ne tey kër gi dëkk bi lu mu yaatu yaatu kër goo dem rek am na ñu bëri ñoo xam ne ci association bi lañ bokk kër goo kenn waxuma ñaar kër goo dem rek am na ñu bëri ñoo xam ne ci association bi la ñuy bokk kon xam nga loolu dafa nekk miir moo xam ne dëkk bi pour wax la rek ne la Daaru benn la Daaru Salaam benn bopp la Daaru Salaam ñëpp dañoo bëggante ñëpp dañoo jàppante lu kenn jog rek yëngatu ci rek ñëpp dañuy jog ànd ceeg yow ba nga xamé ne mbir mi sosuna na sos man la wax ne ñiko sos ay gune lañ yo xamné jang rek mo leen ñoroon fa tabaarakallaahu ba yalla may leen lam leen may ci jang ñu jog ne li dal dekk bi rafetul ñuy gis muy tilim ndax tay bu dekk bi tilimé su fi nit duggé tay do yedd mag ñi do yedd way euh, néewi doole yi ñi nga yedd moy ndaw ñi ndax dekk bu sété dekké ñoko sétal ta kon ñun ño wara sétal setal salam ndax ño dekké Daaru salam lool mo sabab bon ñu sos mbolo mi di def sétal chaque dimanche dañuy dajee ci dëkk bi set setal jumaa ji set setal bayal bi ak li ko wër ba kër Sëñ Omar Ndaw lépp ba mu set dañ koy set setal chaque chaque dimanche gannaaw loolu nag euh, at mi nga xam ne lañ lañ formé lii lañ fondé lii euh, at mu njëkk moom bi premier at bi ci lañ fexe ne parce que dañuy def par réunion semaine bu jot dañuy def réunion réunion yi dañuy def ay cotisation cotisation yi nag ci lañ dajale suñu xaalis bu gaamu jublusee ñu kenn ku ne ñu sas la góor ñu sas ko lii jigéen ñu sas ko lii kenn ku ne sa kem kàttan ba boo ko mënee ëpp yi lañ nga joxe ko soo ko joxee ñu dajale xaalis boobu jënd si ay ginaar jënd si ay euh, ay togg ay kii ay ñam daal yoo xam ne dañ koy jël togg ko préparé ko gan yi nga xam ne dañoo jóge ko ci ay gox yu fasanti ko te bala ñuy egsi fii xëy na coono mën na leen di jàpp xiif mën na leen di jàpp te xëy na bu ñëwee ñoom itam amu amuñ benn moyen bi ndax dara yëgatuwu leen dul gàmmu te sa dañuy dégg toujours sëñ bi di wax ne gan yi nga xam ne ñooy gàmmu si duñ ganu kenn ganu yàlla lañ du yoofu raxmaan lañ kon ganu yàlla nag ñun ay ganu yàlla ñun la ñuy teral ay ganu yàlla la ñuy teertu ay gan yàlla la ñuy berndeel loolu moo waral li nga gis nii yaa ngi gis toog yi jigéen ñi ngi ci bokk gune yaa ngi ci bokk mag ñaa ngi ci bokk ñaa ngi gis ñu ngi sol seen tiset ñun ñëpp dañu dañu waroon sol tiset waaye dafa am dafa am yeneen liggéey itam yoo xam ne dañu coo nekk si kër gi moo tax duñu mën a sol yeneen tiset yi ndax boo solee tiset dafa am looy présenté bu ngoog loolu la loolu la demee suñ mbooloo mi looloo ko tax a jóg waaw dara taxu koo daal lu dul lu jëmale dëkk bi kanam mu jëm ci wàllu set setal jëm ci wàllu bernde bu sëñ bi ootee itam fa tabaarakallaa mbooloo mi nga xam ne ñoo fi nga fi gis nii kenn di dañ fi di di di ñàkk ñoom itam te itam sëñ bi dafa waxoon ne ku ñàkk jëriñu te sëñ Maodo dafa waxoon lu am solo nee waxut sama ta waxuma sama waxuma sama doom ji ma jur waaye koo xam ne ma dégg bëgg ma rek rus nga dee dem safara daaru salaam itam kasaalika nee na daaru salaam ko fi dee dem safara mu def ne daaru salaam rus kuñ fi suul nga dem safara waaw de de mënuma ci dara ndax dee yàlla ba bind dee la bindi bindi bindi dund dafa bindi dee ba pare doog a bindi dund xalaxal mauta wala xayaata ngay wax dafa bindi ba doog a bini dund kon dee mënul ñàkk comme dee nag dana am waaye dee dem safara nag moom mën na ñàkk ndax jullit lii bëgg-bëggam ak lii mbébétam mooy bu dee dugg aljana suñu ma ndaw neewoon na nag dëkk mbii ku fi dee ajana nga waqar faaraqarra ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dugal nañu ko ngir mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew mi wala bitim